salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen jaare tey ñu ngi fii ci préfecture bu Koungheul ñëw nag ànd ak fekk inspecteur Kadam bi xam ne mooy yore inspecteur eh, fii ci département Koungheul ci teewaayu Saliou Ndiaye bu ONCAV ma ne ko nekk délégué ONCAV mais tam ci njiitalu ki xam te moo yor ODCAV bu Koungheul di Souleymane Tounkara ànd ak délégation bu mat sëkk ak ñaari ASC yi xam ne tam ñoom ñoo war a dem représenté département Koungheul wala région de Kaffrine fële ci phase nationale yi muy ASC garab gi de jeune bu jeune a commune bu Junto bokk ci commune bu Ida Mouride ñoom ñaar ñooñu ñoo war a dem nag teewal euh, département Koungheul ou région de Kaffrine fële ca Dakar ca phase nationale yi loolu nag moo taxoon dañuy déplacé wu ku nekk am loo yëkkati pour mën ko jàppale ñaar ASC yi parce que ku xam phase nationale xam na jafe-jafe yu métti mu fi am dëgg moo tax nga gën a surtout fi ñu koy joué di mu nekk loo xam ne war a métti ci loolu nag préfet bi ñëwee dalal leen déglu leen ñuy wax a pare mu jël ak tuutam def ci pare na dina leen accompagner ci bépp mu mënee mét bi képp kuy autorité nekk ci département bi nee dina leen woo pour jàppale leen ci loolu nag kàddu yi ñëpp ña jël nañ kàddu yi euh, ñu pare nag Saliou Ndiaye mooy tënk ko ci côté ORCAV mais inspecteur di Kada mooy jël fa parole bu pare nag inspecteur ki xam ne moom mooy le préfet du département département tënk ko ñaax leen am lu mu teg seen loxo mais tamit yu wax leen na leen ñi dem jëli ko bi indil ko ko dina koy delloowaat ñi nga xam ne ñoo doon liggéey ak mandat bi mu ba léegi. di ko rafetlu ndax daaw dans toute la région de Kaffrine. département de Koungheul rek moo organisé nawetal. c'est mm. loolu buy am engagement zone yi la engagement membre comité de. décade bi la ak zone yi ànd ak. ak l'inspecteur départemental des sports mais ki ñu gën a yombalal aussi mooy l'exécutif départemental muy mm. le préfet mm. parce que bu génne woon arrêté aussi nañ arrêté nawetaan yi à cause Covid 19 bi mm. je crois que kon lu mooy su ngeen mën a assuré ne jeunes yi dañ vacciné wu boobaa da mën a fubal bi ñu ko waxee aussi comme ni ko waxee ñu jublu ci jeunes yi vacciné wu ñu dem fubal yi yaakaar naa ne moo tax le taux bi nga xam ne département de Koungheul am na mu yéeg au niveau de la région de Kaffrine remercier encore une fois notre président d'ORCAV El Hadj Insa mm. mais remercier aussi ki nga ne tey moo suñu kilifa au niveau national mm. muy El Hadj Amadou Kane mm. nga xam ne am na fu mu teg Koungheul am na fu mu teg département de Koungheul am na fu mu teg le doyen Zandiaye ak tous les membres du comité directeur rafet na daaw ki jógee région Kaffrine génne département de Koungheul muy AC xëy Mm. war cee dugal seen loxo ca jàppale leen deux ans et si accompagner leen. Mm. ba fañ war a yegg ci phase bi mën fa yegg. en tout cas loolu défi bu ñu lancé autorité yi la. Mm. mais nag dañ leen loxo te fu a tàllal ñu jaar aussi foofu leen war a jaar ndax boo jaaree ci préfet. yaakaar naa ne di bëgg da daan la yomb. kon préfet merci encore une fois ci dal bi. bu ñu ñëw aussi ñu lay am yaakaar ne dañuy daal bu rafet te gis neen ko. di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm délégation bi ñu yëpp ñëw ci préfet kon préfet en tout cas merci encore une fois. kaddu gi amul lu ñu daal ci ay gàttal. li ñuy tëjee suñu kaddu. vraiment vous avez une voix donc votre pression sur les autorités. pour mm. vraiment ñu jàppale les ASC. E. Ah, donc xëy na ma su waxee. am am am na sens bu waxee am na sens mais sa votre voix elle est beaucoup plus autorisée que toutes les autres voix surtout par rapport au conseil départemental il y avait budget qui allait au phase donc yaakaar naa ne xëy na avec euh, discussion avec la présidente xëy na mën na am mën na jur mm-hmm. ak les autres autorités de la région euh, jusqu'au niveau du ministère de leader en l'occurrence Abdoulaye Seydou Sow il est vrai que moom il va appuyer les gens mais aussi mm-hmm. am na solo aussi ngay defa que ñu ñaan merci. plan financier daaw xay gi jooyuñu. je pense que ne envié wu ñoom benn équipe daaw. ci ñi dem phase nationale. ci wàllu moyen à tous les niveaux. sincèrement parler ASC xëy gi l'année dernière il était très bien choyé. cette année surtout juste loolu ma remercier préfet par rapport ak li mu ci joué daaw ñaareel bi ODCAV la ñuy remercier parce daaw yóbbu na. pourcentage vaccination wu région Kaffrine hmm. Koungheul moo nekkoon ndaare ah. nawetaanee tax Koungheul ñëwaat ci devant je pense que c'est lié ñu wax ko fii remercier ODCAV par rapport initiative bi ñu def daal parce que c'est à saluer parce que médecin chef de région hmm. moo bind suma inspecteur régional féliciter l'ODCAV de Koungheul te je pense que ne loolu succès la ci département succès la ci région bi am plus parce que bu demee ba remercier l'ODCAV bu Koungheul par rapport geste bi ñu def daaw ba taux vaccination bi yeeg je que autorité yi à partir de loolu sax. war na mën a tax ñu accompagner les ASC du département. c'était toujours benn rappel ak félicité par rapport ak li xewoon daaw. parce que bi ñëwee. dafa fekk sa affaire lii nii mais normalement waroon nañu revenir à fii encore gisaat le préfet wax ko mais comme affaire yi chaque instant dafay am yaa nga agenda yi looloo gënoon tax mais je pense que fii pour ñu remercier ko par rapport ak li mu ci dox daaw ba gàtt xay gi dem ci condition yu normal donc pour wane ne ñun dañu engagé wu si wàllum sport bu baax a baax donc bi gisee jën yi di yëngu si yooyu aussi comme ñu leen di jàppale man sama ASP ASC HLM 5 HLM lañu dëkk ah. je pense que HLM bu siiw la woon. Mm-hmm. avant ñuy nekk ay HLM 5 HLM moom sa moom sa moom sa après Bodo ñëw tout ça xam nga rek. Mm-hmm. mouvement yi dem ba la fin ça continue à avoir des lëm géeg yëpp voilà c'est ça mm-hmm. voilà lëm yëpp beneen côté bi la bàyyi gaynde bàyyi gaynde la léegi quoi donc pour wax la ne yëpp football bi dafa ñu amoon solo lool parce que gis nañu football bi muy def si doomu askan bi gis muy def si jeunesse bi buñ fi ñëwee daaw ngeen ñëw fi ñu wax ay conditions rappeler ngeen ko les conditions yooyu yëpp remplir ngeen ko ñu ngi leen di sant bi leen gërëm parce que ñun lan moo ñu amal solo mooy jeunes yi vacances ñu am ay occupation occupation sportive occupation culturelle surtout sportive bi nag en parce que mu muy mobiliser di ko mobiliser si lenn voilà voilà donc euh, gis nañu aussi daaw organiser leen ba mu jeex amul ay jafe-jafe de loolu aussi moo ñu moo ci gën a yitteel ñu ñu sañoon chaque vacance mu am ay nawetaan mais bu mu am ay problème parce que bu amee problème rek comme ni ngeen koy déggee dans les autres département et dans les autres régions dañuy jël arrêté rek suspendre les activités parce que loolu aussi taxul ASC bi jóg taxul as yi mouvement ma jóg mouvement boole dañuy boolee euh, ndaw ñi pour ñu xamante quartier yi pour ñu xamante ñu jongante pour augmenter la créativité waaw pour mun a ndaw yi dans certaines disciplines ñuy wane seen bopp parce que foofu ngay commencer détecter ay jeunes ay jeunes sur le plan théâtral sur le plan sportif sur le plan nangam nangam foofu la ñuy commencer parce que ñu njëriñ bu njëkk ba en général ci ASC lañ doon dem pour mun a dem seen yow donc ñu leen di sant di leen gërëm di rafetlu vraiment le fait que Koungheul am ñaari ASC bu ko war a représenté loolu mooy wane ne Koungheul fii ci département bi en général loo yëkkati rek Koungheul mën a fa kanam de loolu aussi fierté la ñi nga xam ne ñun dañ ñu fi indi ah. doo xoolee ci wàllu éducation fu ñu defee examen daanaka su les trois examens qu'on a cette année ci presque on est tout le temps premier. TFE e, premier BFM e premier bac la ñu nekk deuxième. Mm-hmm. de bac en général ku ñu ëppalee c'est Malem Hodar te Malang Ndoda doo gisee ñu ëpp la ñu en général bëriwuñu woon ay candidat waaw mais sur le plan des mentions Koungheul mooy devant pour wane ne fii en général activité booy jël rek wala secteur booy jël rek Koungheul day wane boppam loolu aussi dafa am solo mooy wane ne en général fii am nañ fi ay nit ñoo xam ne son des gens engagés sur tous les plans muy autorités yi muy ñeneen yi lu ngeen fi wax nag man lu ma si gën a jaaxal mooy teel a dix de les quinze ngeen war a démarrer xam nga xam ngeen yéex je ne sais pas peut-être ngeen yéex a ñëw wala tout cas ngeen yéex a réagir cinq jours c' est un peu compliqué je ne sais pas est ce que bind ngeen ay lettres adresse ko aux autorités mm-hmm. c' fait. c' fait voilà c' est ça maintenant lu def c' le c' le suivi. Oh. suivi moom dinañ ko def ak yéen bu baax a baax a baax ba ma génnee fii sama bureau dinaa jël sama téléphone au kilifa yi pour ñu jàppale leen bu baax a baax a baax naa wala oh. oh. ak président naa wala pour ñu jàpp ci parce que sport bi aussi si compétence transfert yi la bokk sport dañ ko war a jàppale bu baax a baax a baax a baax je ne sais pas mais dinañ def lu ñu mën daal pour mun leen gunge si wàllu boobu wax ngeen ko man Dakar laa dëkk xam naa Dakar la moo fa ne conditions yi c'est compliqué c'est si doo amul yenn moyens yi doo fa toog wala da ngay dem ba ci biir comme nu mu koy waxee nii arrêté si te loolu bu boobaa defal la si ñëpp ah. du oh. yéen rek ah mais defal la si ñëpp ah. auditeurs yi fi nekk yëpp loolu defal la. Oh. parce que ni leen dégg na ñaari ASC Koungheul jógee fi dem Dakar yegg la ñu ñu euh, kii bi. phase bi phase bi ça ça moom vraiment jarul jarul jarul ñu koy jéem a sax xalaat. Mm-hmm. donc dinañ def le maximum pour que autorités yi jàppale leen bu baax a baax a baax du ñu sañoon aussi. doo leen demee aussi comme comme d'habitude ngeen wane fa bu baax seen bopp. wane seen baax bopp mooy une bonne participation. Mm. nekk bañ a nekk rek euh, def nekk ay figurant foofu. Mm. waaw parce que aussi duñ demee ba choisir leen mooy wane ne yéen am ngeen ay équipe yu taxaw équipe yu taxaw nag doo ko amee doo demee da ngay wane sa bopp. Mm. loolu aussi ñu ngi leen koy ñaan bu baax a baax a baax leneen li si topp moom comme nu ma leen ko waxee rek on va faire le suivi xaw na yéex na tey la quinze tey la dix. dans cinq jours vous allez avant cinq ak sa quinze sax comme que le quinze lay démarrer doo moytul ay le onze le douze yooyu ngeen war a départ voilà pour avoir deux jours trois jours de repos et quel que soit le fois ñun nous avons insisté pour ñu jëm ñu jàppale si wàllu yëpp muy muy muy maire yi muy autorité ministre yi muy et cetera ñeneen kilifa yu fi nekk yooyu yëpp moom mii c'est un politicien xam na fan la mun a am. pour politicien yi mun nañ jàppale. yaa ngi muy dégg. donc ñun aussi dinañ ci taxaw bu baax a baax a baax a baax pour ñu leen jàppale ñun aussi suñu wàllu bopp luñ ci mënee taxaw rek dinañ ci taxaw. parce que aussi ñun aussi yéen yàlla ñuy représenté doo leen defee Dakar doo leen amee ndam mooy war wane ne euh, région bi am nañu ndam. Aussi, n'hésitez pas à aller au niveau dans les autres département pour ay actes. Hmm. Parce que bu ne représentez pas seul, non seulement le département de Koungheul, mais vous représentez en même temps la région de Kaffrine. Région Kaffrine nag quatre départements la wax ngeen ko léegi. Hmm. Donc bu ñu demee ba benn département rek di représenter donc la région ça veut dire que donc loolu war nañ ko jox cër war nañ ko jox ay appui yu doy doy doy pour seen participation foofu mun a loolu daal ñu ngi leen koy wax di wax ne aussi ñu ngi dinañ taxaw gouverneur aussi naa ko yëgal mhm. di wax ne vraiment phase yaa ngi ñëw c'est du quinze au au trente quinze jours la ah mhm. quinze au trente entre Dakar et entre Pikine Mbaawe Dakar jusque Guédiawaye waaw Dakar jusque Guédiawaye parce que zone yooyu compliqué waaw léegi yooyu il faut des moyens des mhm. moyens et cetera en tout cas lu mu ci mun daal dinaa ko si def bon d'ici ma xool bon kii de la en tout cas bu ma amee lu mu leen war a appuyer rek naa ko passer par le le chef de service. ak Tunkara mi nga xam ne on est tout le temps ensemble. dégg nga amul benn problème man quel que soit moom sama appui dina ñëw bon je vais dire je vais mille francs pour tout le je vous ai payé cinquante mille francs demee pas je donne les cinquante mille. d'accord voilà c'est ça amul problème. voilà amul problème dégg nga. d'accord merci beaucoup. le reste maintenant on va demander aux autres de vous appuyer hein, malgré qu'on n'a pas des caisses comme les politiciens. <laughs> caisse noire. waaw on n'a pas des caisses mais comme que yéen ay jeunes ngeen def pour ngeen représenter le département. waa ñu def effort rek si si lu si yàlla lu yàlla dénk rek ñu jàppale leen ci. waaw d'ici demain je vais vous donner cinquante mille francs pour les deux ASC ku nekk vingt cinq mille cinq bëriwul ñu leen gërëm vraiment mm-hmm. responsabilité bu ngeen di wane. Mm-hmm. doole di ñun loolu lañu nekk ñu ko pour ñu aaye activité mm-hmm. ñun sañoon activités yi déroulé normalement parce que c' est la période des vacances mm-hmm. la jeunesse mais nag avec une grande responsabilité mooy kenn am ay jafe-jafe mm-hmm. xulante bi dóorante bi ASC yi loolu taxul nawetaan bi nawetaan day c'est pour boole dafa ñu ne mm-hmm. relation en général donc si loolu ñu leen di sant di leen gërëm dégg nga on fera le maximum pour vous hein